ay fan rek des ci weeru koor gi fii ci marché église bu Parcelles Assainies jaaykatu vaisselle yi ñu ngi dëggal ne bagage am na waaye certe gi moo ëlëb seen bopp yi sàll ngaar yi sa bagage am na waaye mais bagage bi dafa seer trop trop trop yi duñu jël lii essange lii am après lii manqué par exemple li manqué daal bëri trop ba pare prix seer na trop wax yàlla bagage yëpp yokk mën xam lu ko waral yëpp yëpp yëpp man man bu seeroon ba pare am sax mu neex ci lu ko soriwul dara Awa di ab na yor ab magasin di jaay fourniture ca wet ga mu boole ci ay vaisselle du ñu xamal choix xale jigéen ñi ci weeru koor bi le tendance bi daal moom bari na yaa ma gën a xam liggéeyu koor kaas dañ koy teg choc garde pain ensemble euh, dina ma neex yëpp yaa ma gën a xam challenge yi na daal waaw te xale yi moom bu rafet rek ñu ngi ci biir. ci kaw yokkute boobule moo waral Sall Ngari di xam la ne saa bu jaayee client ak njëg seer ab kersa lay mujjee daal di am. ba pare carte tabax yi ngeen daan jigéen ñi a baax a baax. Mm-hmm. te man a a am leen neex quoi ndax man sama client su ko jaayee loo lu seer sama xol neex. kaas pañe mburu plate ak yeneen i façon vaisselle am na lool ci marché bi waaye njëg la cher na ba jur ak njàqare si ñu koy jaay tax ba ñu sàkk ci nguur gi mu dal di wàññi tax yi ñu leen di teg.